asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internetu Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah di nuyu képp ku ñu suivre rek ak foo mën nekk si àddina bi xam ngeen Leewtoo la 100 pour cent lamb yàggamaar la mooy film xam nga Babacar nekk si micro bi comme ni ngeen ko xamee ànd ak kan Modou ak Ndeye Coumba Fall bu Babacar du noonu la demee bëggee ñëpp tey nag gis ngeen ki ñu toogal hélas Thioune lañ koy wax. El Hadj Thioune nag bu ñu ko waxee si làmb defe naa ne dañ xam war ñu leen wax lu ko booleeg làmb yaakaar na wala moom dina ko gën a leeral waaye daal xam nañ ne mooy agent wu Tafatine Tafatine mooy borom taq ci rib le géant di Bawol comme ni ko gars di wooye El Hadj hmm, maa ngi lay bëggee. waaw Babacar maa ngi lay fay. Mhm. di nuyu sa gars yi nga àndal yëpp. El mhm. Hadj Thioune gars yi bëgg nañoo xam kan mooy El Hadj Thioune ah. waaw El euh, mooy doomu Dava Thioune euh, sam moo doon ànd ak Boy Bambara yàgg na. moo ko doon entraîné. Ah. yàlla def virusu làmb nekk ci ñun. Mm. waaw moo tax boobu ba léegi ñu ngi ciy nekk di ci bay sunu waar. Mm-hmm. di góor góor lu xool nan la amélioration bi gën a demee de l'avant. de l'avant tey dañu ñëw tout droit rek ci ki nga xam ne moo ñu tax a jóg bu ñu nee Elas Thioune bu agent wu Tapha Tine Elas lan moo ko booleeg Tapha Tine ban taxawaay la amee ci ki nga xam ne ni moom mooy Tapha Tine waaw Tapha bi ma ko xamee yàgg na parce que bi ma koy xam mooy moment bi muy bëree ak cek. Mhm. alors yàlla def ay at di dox di dox ba pare euh, quelques années mu xamante suma grand frère. ajal laaj micro bi na gën a jege sa gémmiñ micro mu xamante ak suma grand frère Cheikh Thioune. ok alors euh, bi nu xamante. Mhm. yàlla def collaboration bi foofu la jógee. Mhm. nu ànd depuis boobu léegi ñu ngi ànd di liggéey sérieusement pour xool. nan la ñu propulser pour dem ci kanam. na leen di propulser pour dem si kanam. mais nekk agent wu mbër maanaam euh, ci boo ñu banee tekkil baat bi ci olof maanaam noo koy taxawoo ci yan nga koy taxawoo ci wàllu carrière sportive bi wala ci wàllu côté finance bi wala ci ban côté yan côté ngeen di liggéey. non mais bari na xam nga boo ko naree lim doo du du jeex. Mhm. parce que mbër boo naree nekk ak moom dafa bari ay côté yu bari yoo xam ni war nga ko ci mun a jàppale. Mhm. ci côté communication bi. ci côté préparation bi. Mhm. ak ci côté carrière bi. Mhm. parce que mbër su amul plan de carrière rek. Euh, mhm. day metti ci moom. dëgg la te je pense que ci côté boobu ñu ngi ciy liggéey bu baax. ak Tafa aussi Tafa nekk jeune. boo xam ni il est très correct. et je pense que moom ku neex a liggéeyal la daal. neex naa liggéeyal waaw neex maanaam nekk ak moom méttiwul. non non non non neexul méttiwul. waaw parce que dégg na ndigal. Euh, te suñ ko conseillé dina ko def. parce que tamit je pense que. Euh, moom ci loolu la gis ci tamit ci ñun quoi. dañ koy conseiller parce que xam na ni lu baax lañ ko bëggal. ak zéro intérêt. Mm-hmm. yéen ay doomu bawol ngeen wala. non man euh, euh, duma ma doomu bawol mais presque benn la rek. doomu bawol ak doomu Sénégal doomu Sénégal ak. Sénégal am daal moo am solo parce que ñun ñëpp benn lañu. ok waaw ñun ñëpp benn lañu. Mm-hmm. waaw yàlla moo nu boole ak Tafa. ak moom ak moom waaw nu war liggéey. Mm-hmm. mais bawol. ak ñun ñëpp benn la. waaw parce que bawal ku wax bawal Sénégal te waxoo bawal waxoo leneen. quoi waaw waaw léegi boo diggee ma laajte la si wàllum agent parce que dañuy gis la plupart parce que balaa ñuy dugg ci affaire combat yeeg ñu mu war a bëreel la plupart mbër yi ci ñuy amee des fois xam nga def nga gis ñoo xam ne dañ naan dañoo bëri ba pare ba bàyyi bëri am problème mu dëkkuwaay des ñu feebar am problème mu faju ak yu mel ne ki noonu est-ce que yéen yooyu yëpp yéen a ngi siy liggéey ak Tapha ci wàllum maanaam côté. dëkkuwaayam euh, ak bu làmb ji jeexee ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni daal yu ko war a topp parce que nit la bi nga xam ne siiw na macha allah nit ñi xam nañ ko te dégg nañ ko ñi ci làmb kaseem yegg na fenn fa si ay million waaw effectivement mais je pense que loolu du dal Tafa. Hmm. parce que Tafa il est très conscient de ça te je pense que du ko dal. Hmm. te bu soobee yàlla du ko dal. kon daal yéen a koy préparé ci côté baax baax a baax baax a baax kon Tafa am na ay kër ci dëkk mais macha allah yàlla nañu yàlla defal sutura macha allah macha allah <laughs> finance tamit xam naa compte ba waaw sant yàlla parce que euh, nit ki solu yàlla defee nga doylu mm-hmm. je pense que am nga lépp mm-hmm. doylu rek mooy àdduna uh-huh. waaw boo doyloo rek yàlla moo lay sutural li si nu bàyyi lépp ci loxo yàlla bàyyi lépp ci loxo yàlla waaw léegi nag bu ñu ñëwee si carrière Tapha Tapha 2018 la gëj a bëri diggante bi si Senior waa Leewtoo production ñoo ko tëggoon ñuy profité di si nuyu waa Leewtoo rawatina ki nekk si bopp ba muy Pape Thialis Faye depuis bopp ba tey gisaatuñu Tapha Tine mu bëre ah effectivement lu xew dox nañ fi ay coowoon nañ fi diggante ak Modou lu benn moment coow la mujjee fii ba Modou Lo bëri ji yeneen combat ba nekk tey roi des arènes ñu waxaat fi digganteem ak Ama Balde ba génne xaalis des luy problème bi. non problème bi xam nga au Sénégal ñu bari dañuy wax c'est des sportifs mais pour man ñu bari c'est pas de grands sportifs. Hmm. coow li moo fi nekk rek. mais bu fekkee ni dañuy wax côté sport. Hmm. ah Tafa def na lépp ci sport. Hmm. wane na yar wane na teggin. Euh, effectivement tu as parfaitement raison parce que tout récemment ñu ngi doon tëgg suñu combat ak Ama Baldé mm-hmm. alors nu dem euh, Kër Pa Abdou Fall contrat bi defoon na ci ñun trois jours mm-hmm. nu étudier ko ba war a signer contrat bi dem Kër Pa Abdou Fall pour finaliser contrat bi mm-hmm. malheureusement euh, suñu adversaire j'ai entendi entendu que dañu woo ni ko mu dellu alors pour mu bañ a jël combat bi te ñoom ñëpp ku ci nekk joxe woon na sa accord ba le promoteur convoqué nu këram ba jour boobu kër promoteur bi sax la ñu añee. Mhm. après yàlla def yàlla dogal loolu. Mhm. mais nag ñun depuis boobu ñu ngi lépp xam ni loxo ci loxo yàlla la rek. Mhm. ni nga ko euh, euh, jël nañ ko ak philosophie. Euh, xam ni àdduna moo demee noonu. parce que àdduna day am toujours ay haut ak ay bas day am ñoo xam ni toujours dañuy defar mais am na toujours ñoo xam ni dañuy yàq mais ñun sunu objectif c'est de l'avancer et de penser positivement. et de continuer avec Tafa pour atteindre sunu objectif. Mhm. waaw maanaam euh, joxe avance ba ñu woote kër promoteur bi ñëpp toog parce que man mi maa nga foon ak ñeneen journaliste ñu nga foon. Hmm. Euh, yow yaa ne après adversaire bi demoon na bay ñëw di jël avance am ñu woo frère am ne ko pour bu mu jël avance bi loolu yéen bi ngeen ko yëgee nu mu def ci yéen. non deful ci ñun dara parce que ju ci ñun on était très positif bu ñu ñëwee ñun war nañu ñëw signer sunu contrat positivement. négativement bi kañ ci beneen côté bi la jógee. Hmm. mais ñun boobu ba léegi defuñu dara. promoteur bi jotul leen jox dara si xaalis. non vraiment waaw non jotuñu jox dara parce que koo xam ni promoteur bi deful dara. Hmm. promoteur bi kañ moom def na devoir am préparé woon na jour boobu pour remettre nu suñu avance. Hmm. malheureusement bi gars yi yàqee affaire bi ci promoteur bi eh, amul benn problème promoteur bi il a été très correct avec nous adversaire bi nu ngeen ko jàppee li tax combat bi yàqu daf leen a ragal wala daf leen a dépassé wala qu'est-ce qu'il y a. dépassement am am fii ci lamb bi. am nga gars yi xam nga ma wax la benn affaire euh, Babacar. waaw ku la wax ay dépassement waxul dëgg. Hmm. déedéet dépassement amul. Hmm. mais soo xoolee tey combat yi am nii actuellement war na ama ah, combat yu neex la. Hmm. mais le vrai combat. actuellement soo xoolee. parmi les vrais combats. le combat Gris Bordeaux Lac de Guiers c'était un très bon combat. Gris Lac mais c'était un très bon combat. ah revanche la euh, Girek Balla du. non c'est un combat mais dama ni man suma doon promoteur Girek ak laay laay tëgg man. way ah. mooy yoon noonu la demee ci côté Tafatine. Ah, Tafatine kon ah. lan mooy très bon combat. y a des déviations dafa am ay euh, Tafatine tamit euh, waroon na mun a bëre ak Gris Bordeaux. way hmm. Tafatine il était prêt. am na ñu doon démarché suñu combat ak ak ak moom ak Gris Bordeaux. est-ce que Gris est-ce que bëggoon na leen. grand. Hmm. de toutes les façons Gris mu bëgg nu ak mu bañ ñu bëgg yëpp. bu ko defee tegu ko ci yoon. Hmm. waaw su ko defee deful côté sportif. parce que bu fekkee ni sport sport dañu wax nii sport day boole. Hmm. sport ñi nga gis nuy def sport yëpp dañuy am esprit sportif. mais pas l' esprit personnel. le sport est l' esprit général. ok loolu mooy sport. loolu kon ndax esprit général boobu am na mbër bu ñu leen fi proposé. Mhm. ah ba ay wax jog ci muy rëg-rëg. Eh, eh, mais bien sûr Reug Reug c' est un très grand champion. alors mu ngi ci biir général boobu. c' est un très grand champion. Hmm. oui Reug Reug. lu tax ngeen rejeté ko. non c' est pas du rejet le bon Dieu sait que du rejet. Hmm. Reug Reug ñun duñ ko rejeté ñun duñ rejeté kenn. Hmm. ñun musuñu rejeté kenn Tafatine boo xoolee mooy lutteur bi nga xam ni moo ci gën a tolérable Tafatine kan la mu dëbëreel. alors kon ñun amuñu ko ñuy rejeté le problème qui se pose mooy. Euh, euh, li nga xam ni mooy euh, ku nu war a yàlla booleel ñun dinañ bëri ak moom. mais Gaston Mbengue su ma juumul ñu koy nuyu di ko jaar papa Gaston di ko jaale way juróom bu jigéen boobu yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana di jaale wàllu sil Baldé senior encore une fois waa Pikine Gaston Mbengue dafa mel ni dox na seen combat ak ak ak rëg-rëg Gaston Mbengue yàlla na ko yàlla yaayam bi génn àdduna yàlla uh-huh. na ko yàlla xare àjjana amiin waaw Gilles Baldé junior uh-huh. yàlla na ko yàlla xare àjjana mbër yeneen yi gën génn àdduna yëpp yàlla leen yàlla xare àjjana ak bépp jullit yàlla defal leen sutura xar leen ci àjjana yi gën a kawe li nga xam ni daal moom moo am importance gas ñëw na ci yéen grand man li nga xam ni moo am importance hmm. dama ni la Tapha dafa am benn plan de carrière te ñun Tapha Tine fekk xam nañu fu ñu fekk Tapha te xam nañu ñun fi ñu war a dem ak Tapha xam ngeen fi ngeen ko a dem ak moom. ñu war a dem ak moom. waaye mais combat bi leen Gaston proposé moom ngeen boobu. dama xam nañu fu ñu war a dem ak Tapha xam nañu fu ñu war a yàgg moom mais Reug Reug c'est un très grand champion mais ñun suñu plan de carrière on va le faire et on va l'assumer. ok léegi euh, Gris am na combat. waay Eumeu Sène combat ak Bombardier taxaw na. Mhm. kon Bombardier mais na mais c'est un très bon combat mais amoon na yu ko comme yan. mais bombardier Tapha Tine pour la clarification. Hmm. dañuy waxante dëgg combat yi. kon la ngeen ko defoon daa leerul ba ngeen bëggoon am clarification. non du question loolu xam nga comme que moom moo taxaw nuy wax xam nga am na ku ci nekk day taxaw ni lii wala lii mais am na ci combat yoo xam dafa laaj mooy dàq du question wax ni moom dafa wax lii wala ñun dañu wax lii mais dafa am ay combat yoo xam ne bu fekkee ni yow da nga xam làmb parce que ñun aussi grand yàlla dafa def làmb duggunu ci par hasard. Mm-hmm. ku sa papa doon entraîné booy bambara. Mm-hmm. ah. booy bambara li mu jël ci ay drapeau bari na mm-hmm. da ngay xam làmb yow xam nga làmb parce que gis naa Babacar yow di fee day Euh, des des des des analyses pertinentes. <laughs> man boo defee analyse yow ak Ndeye Kumba dama leen di déglu. <laughs> kon xam naa bu baax xam nga làmb. Ah, waaw li ma lay li ma lay wax nii. da nga may ah. questionné rek mais xam naa ni ñu bari yaa ma a xam. non déet non man man fi mu ah. nekk nii moom question rek laa fi laa mais. ñi seetaan ak yow mi wax. waaw yéen la léegi nee nga combat Tapha Tine ak Bombardier moo xoon mm-hmm. mais dama la ne Bombardier dafa am combat Eumeu Sène. waaw Gris Bordeaux Balla Gaye. léegi Lac de fi nekk Boy Niang. mais yooyu c'est non say adversaire laa wax. oui ce sont mes adversaires. yooyu Boy Niang pare nga pour bëre ak moom. mais déggoo li ma la ku dul Boy Niang ñun Modou la ñu soxla. ah Modou Lo man Modou Lo. le roi des arènes. oui. Modou Lo sax daan na ci combat moom Ama Baldé ñun ku sax euh, ëpp nañ ko soxla. déggoo ah. man la Modou Lo la ñu soxla na nekk ci avance mais mais actuellement amul euh, benn concrétisation. xam nga ah, ah, actuellement Modou Lo am na am am na combat mais mun na am na ñoo xam ne dañuy jël combat Modou bi muy bëre ak ak ak ak ak nu mu tudd Balla Gaye. waaw ah avant muy bëre ba kan la bëreel. Eumeu Sène Eumeu Sène alors il a fait deux combats. oui il peut venir que ah, da ngeen a bëgg mu signé ak Ama signé ak ñun ñu njëkk a dóor moom. way hmm. yéen Modou Lo koy dox di laaj depuis boobu ba tey maa ngi lu ngeen di faral di wax moom de. non Modou Lo yaakaar lu yomb la. non du Moussa dafa ne ci combat parce que joxe na kàddoom ci diggante Ligue Nicolas ci digganteem ak Ligue Nicolas yi. Lo ñu nuyuwaay Ligue en passage di ko ñaanal yàlla mu tam fa mu nekk génn fa ak jàmm. Modou c'est un très grand correct. waaw man Modou gis naa ko bu baax te dama koy ñaanal dama koy apprécier parce que c'est un très bon lutteur. Mhm. am na plan de carrière bu baax mais nag c'est un droit mu ñëw ni Modou parce que Modou ak ak Tafa mosuñu bëre. combat boobu daal da ngeen ko jànq combat jànq boobu. ngeen mais combat bu neex lay lay lay nekk. Ah. parce que je pense que li Nicolas bi muy tëgg ne woon na ñun nooy plan B bi léegi nag. Euh, combat boobu mun nañ ko tëgg mun na nekk li combat bu neex lay doon. Ah. combat Modou Lo parce que Modou tu tout gis naa temps yëpp ken waxul ci Modou Lo. way hmm. te Modou war na mun a bëree ak Tapha Tine parce que bëree gunu. way hmm. yéen daal actuellement kon seen adversaire bu ngeen sañoon muy Modou Lo. way plan A. plan A way mais moom am na plan A ba pare ndax Ama Baldé mooy plan A. mais mais mais amul concrétisation à ça pour ça. Hmm. oui. mais ñu ngi ñaan ko ku tëgg mu génn ba concrétiser. mais yàlla na ko yàlla def. Hmm. man mais li nga xam ni man man la concerné man loolu laa wax. loolu nga wax daal waaw. Tapha Tine lan la lu tax maanaam la mën nga wax li tax làmbam di dëgër nii pour muy am problème mu adversaire no pour man làmbam dëgërul. làmbaam làmbaam. Euh, mais ñi mu war a bëri la de Guiers dama dégg naa ko tey li ma la wax yow yow déggoo ma de ci côté li ma la wax. Ah. sportivement laa la wax. maanaam gars yi. déggoo li ma la wax gis nga suñ doon takk affaire sport laa la wax. ci yoon honnêtement. waaw kon Tapha am na combat bu yàgg. xam nga mais fii Sénégal lépp xam nañu ni gars yi di tëggee yenn combat yi xam nga. Hmm. teguñu ko am na ci yoon mais am na ci yoo xam ne man pour man teguwul ci yoon. am na ci yoo xam ne teguwul ci yoon teguwul ci yoon. parce que am na ci combat xam ne moo gën a valable te amateurs yi combat yooyu la gën a bëgg. way hmm. mais depuis ngeen jógee seen diggante ba Abdou Fall ci problème boobu amoon seen diggante ak Ama ba combat ba yàqu est ce que beneen promoteur ñëwaat na proposé leen fi adversaire waaye déggoo li la wax ñun chaque fois nu proposé nekk nii ñu ngi leen di proposé. bien sûr comme Reug Reug moom siiwoon na moom xaw ma ñeneen ñi des laa bëgg a wax de toutes les façons ñun ñu ngi ñuy proposé le bon Dieu sait que ñu proposé mais euh, bu yàlla waxee ni kii la ñuy bëreel incha allah dinañ dinañ bëre la dëggir de seeti naa ko ci korité gi moom ne na tafaatin moo gën a neex a daan ma ne ko seen revanche moom dàqul bëriwaat gi yen waaye jàpp na ne moom daan leen moom ci moom comme kuy naan ndoxum glace mu sedd rek waaw Lac de Guiers c'est un champion Lac de Guiers nu amaatee combat ñu nag moom hmm. il va il va il va comprendre. Lac ngay waxal de. waaye déggoo li ma la wax. Ah. Lac bu nu amaatee combat. Ah. il va comprendre. on va l'attaquer on va le cogner on va le battre. cuun li nga wax doy na waar de nga ne su ngeen amaatee combat da ngeen koy attaquer gagner ko. on va l'attaquer on va le on va le moom Lac de man maa la ko wax. ah technicien yi nañ moo gën a jafe bëril ci làmb li ma la wax déggoo li ma la wax. waaw waaye ana promoteur yi ñëw leen wax ci combat la ak Tapha Tine mhm. ñaari njool lañu ñaari xeexkat lañu. ñu delluwaat buum ca booy booy ba yàgg maar bëriwoon nañu combat bu neex ci kalafu 2007 ba Gaston Mbengue lak daan ko heure bii avance bi ñor na mais ñi may yéen day taa yi daa mel ni kon seen yaram daa tàng. waaw non xam nga ñun nag suñu suñu yaram il faut mu tàng parce que on a subi beaucoup d'injustice. injustice comme. bari na mais euh, je préfère que nous régler ko avec beaucoup d'action et moins de parole. incha allah loolu ngeen jàpp daal incha allah mais est ce que xalaat ngeen ne saison bi ñu jëm incha allah rabi yàlla nañu ko fekk te tal ko di ngeen bëri bu ko yàlla tuddee dinañ bëri hmm. maa la ko wax bu ko yàlla tuddee bu ko yàlla tuddul nag duñu bëri mais xool et puis je profite de l'occasion di ñaan yàlla suñu borom moom laa naa tabaraka taala mu indi stabilisation parce que hmm. euh, boo amee stabilisation rek xam nga yàlla dinañu suturaal hmm. parce que Sénégal euh, dafa nekk dëkku jàmm yàlla suturaal nu lépp luy loore mu génn ba feet yi commencé waat manifestation culturelle yi commencé waat lamb ji commencé waat ba ñëpp kontaan quoi jàmm amaat ci réew mi complètement quoi man loolu maa ngi koy ñaan ñëpp quoi waaw mhm. waaw mbër yëpp amaat combat Tafa amaat combat ñoom Lac de Guiers waaw ñëpp ñoom Lac de Guiers ñëpp ñoom Malick waaw ñoom Boy Niang ñoom rek rek ñoom ñëpp benn lañu parce que ñun bi waa sunu lamb doon def seen sunu lamb door cérémonie sunu lamb door ma nag Tafa dem nañu. Mhm. fekk fa la nu fekk nu mu tudd Malick Niang Reug Reug mhm. fecc ñun ñëpp. Mhm. mais loolu mooy sport. fecc ñoom wàll sunu lamb kontaan. adduna amul solo grand. fecc xoolal wan leen ni c'est c'est la fête c'est la famille. c'est sunu neexoon boobu duñ dem. ah mais man buur boobu man maa ni Tafa nan dem. mais lamb ji tey gars yi dañ doon wax naan day daanoog day nii ñu xëy gisaat ku mel ni Gaston Mbengue ñëw ak yeneen promoteurs yu bees. ñëw Gaston Mbengue noo ko gisee. noo c'est que du daanu. la culture ne mourira jamais xam nga culture dëkku tubaab bi sax noo gën a xam lan mooy culture la culture ne mourira jamais que muy Gaston muy Luc Nicolaï muy Pape Abdou Fall muy ku mu munti doon xala làmb kenn munu ko daaneel parce que culture ku bàyyi sa culture dégg nga gis nga tey boo demoon ci dëkku tubaab yi boo ñëwee sol costume war a def conférence war a dara boo ñëwee sol garambu bu ci leen lay gën a respecté ok culture du jeex grand. la culture ne mourira jamais. kon daal yow gisoo bokkoo gis-gis ñuy wax loolu ci làmb. non jamais làmb mënul daanu làmb du daanu. Hmm. làmb mais retour Gaston noo ko gisaatee. mais lu baax la Gaston Gaston Gaston il est il est bon. Hmm. parce que moom vraiment su ñëwee dina yëngal affaire yi. xam nga xam nga vraiment gaa yëpp kontaan. xam nga vraiment ñëpp kontaan gaa yi commencé waat yëngatu c'est bien man lu lu positif la def. positif la def vraiment parce que bi mu ñëwee gis naa affaire yi commencé waat na. bouger quoi xam nga. Ah, affaire yi waaw vraiment waaw gën a amaat coow. waaw jaamu a amaat <laughs> loolu vraiment man maa ngi ko ci ñaanal quoi. <laughs> yàlla na ko yàlla defal suturu quoi. waaw am na solo waaw. léegi ba tey coow li ci làmb ji ren amoon na fi coow yu métti ba tey sax jeexagul diggante arbitre yi CNC bi rajo bi. dàq bi wàccee bi mu jur coow lu bëri ñi tamit taxaw fii na Alioune Sarr na dem mu nekk coow loo xam ne tamit loolu yow en tant que sénégalais mais en tant que kuy dund làmb yore mbër noo gisee loolu waaw mais c'est vrai mais Alioune Sarr gars yi nee na dem te Alioune Sarr dina dem mais na nanu rafetal hmm. parce que Alioune Sarr moom ak arbitre yi dañu yàgg xam nga arbitre bi nu nekkee ak Alioune Sarr am na ay ati ati at dafa yàgg hmm. comprendre nga na hmm. nanu rafetal rek mu mu rafet xam nga nu ñaanal ko accompagner ko Mhm. tranquillement ah parce que honneur la rek nu honoré ko quoi oh. parce que Alioune Sarr mag la xam nga d'accord rigueur am na rigueur mais je pense que xol bi dara waru ci nekk quoi. ok waaw ma gars yi nañu am compréhension jox ko cëru cëru papa bi rek. ah bu ñu ko joxee cëru papa bi accompagner ko mu génn par la grande porte après la vie continue. njiitu CNC bi après Alioune Sarr loo gis yow. non nitu CNC bi bari na quoi xam nga mënu ma wax kii la wala kii la bari na. parce que euh, làmb ji bari na ay nit ñu baax ñu fi ñu fi nekk. parce que ñu ngi dégg fii Tyson fii ci côté bi di déggaat yeneen tur ci yeneen côté yi. waaw Tyson moomu soo ko doon qualifié tey en tant que président CNG buy war a ñëw mën nga d'accord nga ci mu jiite. waaw mais loolu mun na nekk ah. mais hmm. xam nga man pour man côté boobu daal je préfère bañ ci sori. bañ ci sori daal parce que ku nekk ku am compétence yi daal. Hmm. su fekkee sa wërsëg la yàlla na la ko yàlla jox. Hmm. am na solo. Ah. léegi boo amoon loo xam ne nii bëggul nga ko wax fàtte ko te waxagoo ko lu muy doon. waaw di ñaanal Sénégal rek di ñaanal jàmm di la ñaanal yow tamit di ñaanal Ndey Kumba ak sa gars yi nga àndal. Mhm. ngeen dem parce que liggéey bi ngeen di def yéen euh, waa Leewtoo wax dëgg yàlla waaw neex na trop baax na trop parce que je vois que Sénégal képp kuy xëy la matin bu mi di jotee dina taal ni nekk ci askatu làmb yëpp di la déglu di déglu waale Ndey Kumba mhm. di xool waa Leewtoo yi quoi. Mhm. ngeen da ngeen bokk actuellement ci ci dundu. si xolu gaay mm-hmm. waaw ba pare yéen tamit ngeen koy defee ak yar mm-hmm. ngeen koy defee ak teggin mm-hmm. waaw vraiment yàlla na leen yàlla gën a boole xam nga seytaane ba ñu dugg seen biir ba yàlla defal leen sutura ba ngeen yor te ngàndam télé di def def ay événement yu yu am solo ci yërmande yàlla amin amin amin yàgg maar ah kon noonu la demee woon muy El Hadj Thioune agent loolu mu ñu wax yëpp nag defe naa bu dee suñ côté li ci jëm la moom ñaax la rek waaw parce que yaakaar naa ne euh, defaguñu sax dara pour man dañuy jéem rek kon daal ñaax yooyu ak li nit ñi bàyyi xel ci li ñuy def ñu ngi leen di wax rek encore une fois que ni ay ndaw la ñuy jéem bu ñu juumee na ngeen ñuy bàyyi xel di ñu dimbali ci njuum dellu ñu ko signaler ndax nit matul. yaa ngi dégg te mën a mën a joo gis dadul wóor da ngay bàyyi bañ na la yow la yaa ngi dégg mais du tere ngay ànd ak sa xel di ànd ak humilité dafay am solo li mu wax tamit ci làmb ji dégg ngeen ko mbërëm la yor tafaati nag dama naan daa war a bëri dem day gu fa faa la ne ma combat tafaati nag la dëgg ma loolu un plus un égal deux la dañoo war a bëri lak booy ñaa un plus un égal deux mu loo dafa ne ci contrat wala sax man nañ ne waxan na ba joxe kàddoom waaye moom tamit mook tafaatin war nañu mën a laal ndax lambi jànq la rëg tamit daa bokk ci biir nañ ko sóoraale parce que boo bëree rëg moom ren itam téwén xalaat naa ne bu continuer ci la muy nekkee mën nga am lamb boole leen kon mbëri yëpp nañu bàyyante xel rek te kuñ ci indil avance bu raisonnable nga jël ko nga bëri loolu moo am solo parce que di xaar yàgg maar xaas ci poste daa gën a wóor bañ yor xaalis noonu la demee woon kontaan ci ñëpp